alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala alfatihi alxatimi sayidina muhammadin nasir alhadi ila siratillahi almustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم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 gën tedd gën a sell gën a sakkan doy walis bépp nuyoo da benn nuyoo mënta doy walis ko ñu tibbeeku ci suñu xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di dellusiwaat ci kartanal yàlla di sof ak yow li ma sosoon ak yow ci wàllu julli yi loon naa la julli bari ci xeeti julli yi dooree woon ko ci julli farata yi lu mel ni juróomi julli yu ñu yàlla gàcci muy tusubaar tàkkusaan timis gee suba waxuloon naa la julli nga xam ne ay sunan la waaye dafa nekk sunanul mu akkada lu mel ni witar ak julleeg tëbaskeeg korité ak julleeg baaw naan ak julleeg muurug jant tuddaloon naa la tamit ay nawaafil lu mel ni dawal ñeenti rakka njëkk tusubaar gunge ko ko wala gàttandoo ko ko su tusubaar ji paase nga julli ñeenti rakka gunge ko gasandu tàkkusaan te ñeenti rakkaam ya gunge timis juróom-benn rakkaam ya jeexe gannaaw bi nga ko jëlee loo man ci guddi gi ci naafila nga def ko bu ma dee fukki rakka ak ñett mu gën a baax ndax loolu daan yonent buy naafila wala juróom-ñett ak safaak witar muy fukk ak benn ñaar yëpp ñaari hadis la yu wér bi Ibnu Abbas ko wandi bi Aïcha boo ko bëggee dëppale nga ne bu xatul rek fukki rakka ak ñett bu xatee rek fukki ak benn boo ca boolee safa baag witar waxaloon naa la julleeg fajukaayu aajo waxaloon naa la julleeg fay faat waxaloon naa la julleeg fay nange muy julleeg weeru koor waxaloon naa la sax xatta julleeg boo amee lu la réer nga bëgg mu feeñ julleeg boo bëggee mokkal alquran ak julli goo am solo googu ma waxoon lañu koy def gannaaw bu ñu bàyyi ko ci julleeg ajjuma gi njëkk ñu julli tàkkusaan waxaloon naa la ko waxoon naa la tamit li bëri lu yàqu ci julli muñ koy jangee yañ ca mën a jàng xam ne mën nañ koo jangee sujoodu sëhwi benn muy qabla salaam wala muy baxda salaam ak yi nga xam ne kenn mënu koo jàng julli gaa yàqu ci boppam dañ koy sosaat ak yañ mën a jàng te mañ koo sosaat yooyu yëpp xuusoon naa ci ak yow gannaaw nag bi ma la waxee jullee ngëneel yu rëy yi mu làmboo nañ ko joxee yonantu bi ci asamaan mu indil ko xeetam week lañ ko ca wàññil te wàññi coono ba bàyyi payoor ga dama bëgg wax ak yow nag tey rek fuñ koy defee gannaaw bi ñu xamee nuñ koy defee moom julli waxaloon naa la farata yaag sunna yaag euh, mandubaat yaag muy farata yaag yuñ sunna yaag yuñ sopp ya waxoon naa la ya koy yàq ak ya koy jàng kon yooyu yëpp dafa duggoon ci nuñ koy defee tey nag dama fas yéene duggee ak yow fuñ koy defee buñ koy defee nag fa ca gën mooy jàkka yi jumaa yi palaas yañ tabax ci dëkk di ko askanee yàlla yàlla tamit askanee ko boppam gannaaw bi yàlla terelee yonantu bi xeetam ngi defal leen suuf yëpp muy jàkk yam ca setti woon waxoon naa la ko juróom-ñaari place yi nga xam ne bokkuñ ca suuf soo ñu joxaale ko kenn du ko julli waxoon naa la ko jàkka yooyu nag yàlla askane ko boppam moo gën ci fu ñuy war a jooxee julli ndax dëkk boo dem place bañ ca askane yàlla ne mooy jumaa ja wala mooy jàkka ja moo gën ca dëkk ba moo tax ñu bëgg gën koo rafetal mu gën a taaru ca dëkk ba ndax lu ñuy askane yàlla rek moo war a dàq ca dëkk ba waaye bokkul ci sagal diine tabax seen kër yi ba mu rafet lool bàyyi néegam yàlla ba mu gën a ñaaw ca dëkk ba boo fa demee am na ci jàkk yoo xam ne sax basan yu baax amu fa yoo mënalal ngir julli jàkka yu ca bëri boo demee poussière baa nga fa mu lay muy fekki fii daal liñ fiy jullee bëriwut ñi fiy julli tamit bëriwut te ñooña gàddaay jàkk ya boo demee seen néeg ya ñu ngi ko meubale def ci ay fauteuil yu rëy lal ci ay moket jënd télé écran yi double écran yi def ca fexe abonné wifi ñu toll ñoom ñu ngay connecté wu pour ma a pour ma lu jëm ci seen wàllu àdduna te ñooña du connecté wu déconnecté nañ ci seen wàllu yàlla amatul ci ñoom ku ci am connexion ci seen diggante seen borom néeg ba leen war a jox connexion taxaw taxawaayu wifi nga xam ne ku fa abonné danga nga am connexion bu doy boo xam ne du dagg du fulu du rëcc nee booba lañ gën a sàgganee ca dëkk ba nee baa nga poussière lalto ya baaxut boo fa demee sax bëgg a jàpp mbaa nga bëgg a dugg ca wanag wa da nga mujj séexlu yaa ngi doon daw sobe moo taxoon nga ñëw fii di xenneeku sobe waaye da nga fay mujj jëlee sax sobe su gën a rëy da nga fay yenni te loola lépp sàgganu waa dëkk ba la ak seen gannaawal diine ak gannaawal gi ñu gannaawal yàlla te ku ca dee foo mënoon a dëkk te jàkka ja lañ lay mujj seede lay dugal la ci sa pax bi ndax jàkka jaa fa néegal nekkal nekkal yàlla mooy banque bi ñu war a verser moo tax léeg léegi ñi teg fa nit di tartar yi wax rek jullit xàqana ngi ku baaxa ngi ku juba ngi ku bëgg mbokka ngi ku fonkoon diine ngi jàkka ji ne maa fi nekkal yàlla ci man la ñuy verser de waaye kii seen wax yu bëri yi ngeen di wax amul bi sax compte li ngeen di seede lépp maa fi nekkal yàlla te mënuma koo seede ci moom ba muy man daanul ñëw ci man ba ko yàlla man loo mosta def ci man dafa dem ba tële ngeen bëgg ko indi ci man kon li ngeen seede woon lépp ngeen bëgg mën tar ma man ma valider ko mooy dëggal ko dara amu ci su ko defee ñu jëlee fa jëmm jooje wéq ko andi fa jeneen jëmm ña fa nekk tartar yi wax rek fekk na jëmm jooja néxatu fa kon nag nañ fonk jàkk yi mooy kontab jaami yàlla yi ci yàlla nañ fonk jàkk yi moo taxaw taxawaayu connexion bi ñu mën a connecté wu ci suñu diggante ak suñu borom nañ fonk jàkka yi li nekk ci kaw suuf yi lépp yàllaa ko moom waaye mbaaxam ak yaatoom ak tabeem moomalewut ko boppam lenn rek la yàlla jël ci kaw suuf moomale ko boppam mooy jàkka yi jumaa yi li ci def lépp moo ko moom waaye ne mën a jël leen soxluwuma ko jël leen ngeen xëccoo moo tax foo dem tey ci dëkk bi kenn ku ne li nga moom buñ ko seddoo woon rek néegi yàlla yoo fi def dëkk bi li muy rëy rëy bu la neexee tàmbali ndakaaru kër goo fi gis am na kayitu kër yenn yi titre la yenn yi ay bàyyi la yenn yi yeneen kayit la yoo xam ne mairie koy defar waaye lu ca mën a am daal turu borom a nga ca bu dee titre foncé ñu ko mosoon moom yëpp suñ jaar ba xegsi ci moom tamit ma nga ca waaye yooyu yëpp doo ci gis yàlla ñaareel bi séddoo nañ magasin yi marché yi boo mën a dem Sandaga la marché Joor la marché police la marché Njaareem la cantine boo ca dem mbaam magasin rek am na ku ne moo ko moom fexe na ba wutal koy buntu utal ko ay xomb yu dëgër caabi ko boole ko xut gardien bu koy garde oto yi li ñuy bari bëri carte grise boo ci gis rek am na ki turu borom nekk ca ah loola lépp noonu la demee yëre yi bagaas yi ba ci mbedd wi sax far nañ am kuñ ko moomale tudduñ ca yàlla ni mbedd mi mbeddam buur la lu ñu neex def yàlla ne jël leen soxlawuma xëccoo leen jël leen man daal li suuf di yaatu lépp gannaaw bi ma moomee lépp moomoowuma ko lenn dong laa ci moom moomoo ko mooy jàkk yi moo tax mu ne wa annal masajida lillaahi ba alquran jeex dootoo gisat lu nekk ci suuf lu yàlla askane bopp nu dul jàkk yi kese bu ci des yëpp jël leen boo demee tey ca àll ba waxatuma dëkk ba waaye tool ya ca àll ba sax séddoo nañ ko kenn ku ci nekk fii laa mooy sama digaloo wi su ko nit jéggee meeta jaral na la jaay sa bakkan moo tax saa yoo taalee télévision yi rawatina wal fajri di seetaan yaa ngi dégg nit ñu takk seen morso yu xonk yi di ñaxtu du di métitlu ne dañoo jël suñu xaq duñ moom wala suñ bàyyi moom ko mbaa suñ maam suñ maam yi moom ko ñu bëgg ñoo néewal doole pour fas yéene nangu ko tudd ñenn su ko defee nag ndeysaanam léegi euh, léeg nga dégg ci sax ku ca ku ca wax ne lii daal ku ko nar a nangu ci ñun ñun de suñ bakkan yi lañ ci teg dañ ñuy rey ba ñu rek waaye kenn du ko jël loola mën naa nekk ay kër mën naa nekk ab xàll bu nekk ca àll ba nga dégg loola ñu ne suñ bakkan yi lañ ca teg ma ne ah da ngeen ci waroon teg seen xel mi nag bu ngeen ci seen xel mi daal da ci mën a jënd waaye bu ngeen ci tegee seen bakkan yi yéen moom sax du ngeen ko fekkeeti kon dama bëgg a wax rek boo demee ci àll bi séddoo nañ kër ya séddoo teen ya séddoo mala ya séddoo janaaw ya ganaar ya ba waale nañ àll ba sax kenn ku ci nekk boo ko laajee mu ne fii mooy sama jàtt ji maa fi bayoon daaw dugub fii maa fi bay gerte fii maa fi bay ñebbe fii laay bay xaal waaye loolu lépp boppam la ko moomale wala maamam wala baayam waaye amul dara lu mu ci moomale yàlla moo tax tey suñ ne woon kenn ku ne li nga moom xenu ko bu ñëpp mënoon a xenu li fiy des te kenn du ko xenu mooy mooy léegi yàlla yi kese moo fiy des waaye li ci des yëpp nit ki dëgër fitam ak ak njàmbaaram ak yaay pexeem fexe na ba moomale ko boppam ak fu mën a jaar lii nga wutal ko ay këyit mu kenn mënu ca dara waaye jàkka yi rek a fi des yàlla na jël leen maa ko moom waaye moomoowuma ko ndax ñorut ma safut ma yi dong laa moom te moomoo ko wa ana al masajida lillahi moom nag fala tad'u ma allahi ahadan bu leen fa xoo kenn xoo leen ma fa man kenn kese waxaan na ko feneen ne fii buyutin an turfaa wa yuzkara fi hasmuhu loola lépp mi ngi koy moomalee boppam muy jàkk yi kon nag gannaaw bi ñu xamee loola lépp nañ fonk néegi yàlla yi comme moom moom moomoon lépp te moomale nañu ko la mu moom te moomoo ko nañ ko ko fonkal te yàlla nag ñaari bagaas rekk la am ci kaw suuf ku ko ko fonkal mu fonk la mooy jàkka yi ak daara yi daara yi lañuy jàngee téeréem bi jàkka yi lañuy jooxee julleem yi ak yeneen farata yi ñaari bagaas yàlla yi ku ko téyel yàlla askan woo bokk da bokk ki nga ca nekk ca kanam waaye doo bokk ki nga nekk ca gannaaw bokk mënta ne xanaa nga yoreel ko yàlla di ca tiitaru wala nga yoreel ko yàlla soppi ko centre commercial di ca commerci wala nga moomale ko yàlla ci tur te moomale ko yàlla ci xool kon de askan wa bokk yaa cay gën a torox yaa cay gën a suufee yaa cay gën a tarde waaye boo ko moomalee yàlla ci xol ak ci jëm di sellal lañ fay def ngir kiñ koy defal su boobaa askan wa bokk da bokk ci ñu nekk ca kanam waaye doo nekk mukk ñu nekk ca gannaaw kon jàkka yaa ak jumaa yi moom la yàlla moom te moomoo ko yi ci des yëpp moo ko moom waaye moomoo hut ko jàkka yooyu nag nekk fi ak jumaa yi dafa am cosaan cosaan yëpp ci jàkka yi ak jumaa yi ñi ngi soqe ko ca kaabatal musarrafa mooy kaaba ga mooy première jàkka di première juma bu njëkk a sampu ci kaw suuf yàlla wax na ko ci alquran inna awwala baytin wudi'a linnaasi lalazi bi bakkata mubaarakan wa hudan lil aalamiin kon moo fi jiitu jàkka joo waxati ci kaw suuf wala jumaa rek ma nga soqe ko ca jàkka jooja xisan wa maanan la koy xamal aadama mii di bàyyi mbindéef yi dafa juddu fekk fii kaaba gi kon fi ñu war a jaamoo yàlla moo fi jiitu nit ki war a jaamu yàlla li ko waral yàlla ndox la njëkkoon a bind njëkk muy bind suuf ci lu hëpp ñaari junne at mu jël ne booba di kaaba ga mu nekkoon dax bu weex tal nekkoon ci kaw ndox moom mu njëkkoon a bind ci suuf mu tàllal suuf ci kaw ndox ma mu ko sa tàllalee ca kaw dax booba bu ko defee muy yëngatu di rambi rambi yàlla dëgëralee ko yi ba suuf bi mu ji teey mu ji dëgër mu ji dal fekk na kaaba gi moom tabaxu na ba pare yàlla door a wàcce aadama aadama nag wéet lool yàlla ne ko del wéttalikoo sama tur <coughs> fu mën a nekk rek da ngay tudd yàlla yàlla wàccee dara ci baytul maamur mi nga xam ne mooy kaabaay malaaka yi ci juróom-ñaareeli asamaan la ne yonent ba muy defi mi'raaj demoon na fa jibril mu laaj jibril ne ko fii nag mu ne ko mooy kaabaay malaaka yi bët bu set juróom ñaar fukki junne malaaka dañ fi dugg te bu dugg dootoo génnati muy tekki rek bëri mbindeef ak yàlla yi ci wa maa yaalamu junud rabbika illa huwa ñi wàccee ko nag mu nekk wurus bu xonq cur am ñaari buntu yoo xam ne dañ koo liggéeyee ci sabar jat bu bula buntu bee féetewoo penku buntu bële féetewoo sow yàlla tëral palaasu ndax booba foofa la tëral maanaam kaaba gi moo tax aadama daana ko dikkal bàyyi ko Inde di dox ñëw di ko xaj si xaj na ko lu mat ñeent fukki xat moom aadama waaye nag fi la ko aadama fekk ah, moo fi jiitu aadama yàlla jël aw doj bu ñu tuddee xajarul aswad bagage la yu bàyyi ko ci aljana ñu def ko ca kaaba ga dafa weexoon tal bëri lu ko nit ñi laal ak seen bàkkaar yi moo ko tax a ñuul léegi nag kaaba gaangoog fukki yoon lañ ko mas a tabax boo fi jiitu moo jur kaa moo jur jàkk yépp ki njëkk a tabax kaaba gi maanaam mooy malaaka yi yu tedd yi gannaaw si gi aadama tabax na ko gannaaw si gi siisa tabax na ko doomu aadama la gannaaw si gi bani xamaali ko yun tabax nañ ko gannaaw si gi Ibrahima tabax na ko gannaaw si gi Xusay ni maam yontu bi tabax na ko gannaaw si gi Quraysh tabax nañ ko gaan gannaaw si gi Jurhum Jurhum nag ñoo jiitu Quraysh tabax nañ ko Abdullah ibnu Subayr tabax na ko naka noonu Xajaaj tabax na ko moo ko mujj tabax yonent nag moom sallallahu alayhi wa sallam xam fanweeri at ak juróom ci ko waa Quraysh di tabax dañ ko tabaxee dara desut lu du war a yëkkati xajarul aswad war koo teg ca palaasam ba ñu xuloo xëccoo xeexoo ñenn ñu ci nekk jaayante daraja ni ñoo koy yëkkati mu jigéen ñoom ñëpp ñu bokk d'accord ni ki njëkk a génnee baabu salaam muy buntab jàmm bi lu mu àtte rek ñun d'accord nañ ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam génnee fa booba yónneeguñ ko muhammadul amin lañ ko daan tuddee lu ngeen jotee yéen ñeenti famille yi ñu ne ko Kaaba gee pare de kenn ko ci nekk ci junne moo yëkkati hajarul aswad ñu ne ko duñ la ko baxee boo lëggee say doom di ko suturoo suñuy doom say sët di ko suturoo ci kaw suñuy sët yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca xereñam ga ak mën a tem ga maam xalifa jàngale ko ne xakamatu qawmu qurayshin fi rafee alxajar wa bima yurdil kulla kaana qadaaw mu ne yëkkati làmbaayam ga teg yëkkati hajarul aswad teg ca ne yéen ñeenti famille yi doon xëccoo famille bu nekk na jàpp benn koñ ñu bokk yëkkati ba mu toll fa mu war a toll mu placé ko daana waa Aysatu ne ko bu taxutoo nag sa nit ñi beese giñ beese ci kéefee bañ ca bàyyi ko yàggul man danaa tabax kaaba gi waaye gis nga ko lépp loo xam ne lu baax la te boo ko yëkkatee lu bon la la muy jur ci ak noonoo ak ak xëccoo ak ak xuloo ak ak turante deret mën na koo jur dangay ngay far bàyyi loola tabaxam yonent bi kaaba gi lu baax la waaye yàlla xamal na ko bu ko defoon lam mën a jur ci wàllu tendance ak ci wàllu parparloo ak ci wàllu fiirante moo tax mu Aysatu ne nekkoo moo tax ma bàyyi ko kon nag loolu lépp dañ ciy jàngee doxalinu àdduna lépp loo bëgg a yëkkati ci famille Ah, wala nga bëgg a yëkkati ko ci dëkk wala ci réew wala ci gox seetal lam mën a jur su fekkee lam mën a jur ci aw xay mën naa xëpp xiw wii nga far ko tëral ndax yiwu yàlla yi du jeex dem feneen feneen foo mën a dàkkee yàlla ca yiwam yooya nga xam ne du jeex mukk taawa gi nag di ko ñii ñëpp tabaxee yonent yàlla ibrahim yàlla tudd na tabaxam gi ci alquran ñi ma tudd ñëpp amul kenn ku ci yàlla tudd sag tabax du bani xusay du waa bani jurhum du quraysh du xajaaj moom sax gannaaw alquran ci la door a ñëw du abdulaay ibnu subayr nga ci aju waaye daal kiim ci tudd tabaxam gi daal te mooy beesalaat gi mooy suñu maam ibrahim yonent yàlla ibrahima bi mu paree ngir beesal kaaba gi nga xam ne tuufaan a ñëw muy ndox mooma doon am mbënn moo ñëwoon màbb mbooleem tabax ya fa nekkoon ba mu def fondation ya sama boroom ne ko nag demal nga yëkkati fondation yi ci is yarfaxo ibrahimul qawaida min al bayti wa ismailu ba mu ko yi moom nag ba mu ko yëkkatee ba pare doomam bi jàppale ko ca liggéey ba ba kaaba gi mel nam war a mel ah garaawaay ya desoon ak tajitu mooy yaag suusa dafa ko dajale woon jal ko benn place laaj yàlla ne ko fan laa koy tuuli yàlla ne ko tuurloowuma la bàyyi ko foofa rek ba ko fa bàyyee ba guddi jot ci la ko ngelaw yëkkati tasaare ko ci àdduna bi yëpp wala maa wuyu ne nañ fépp fu doj wu mag daloon balaa àdduna bi tukki rek dañ fa tabaxal yàlla juma fépp foo xam ne doj ndaw moo fa balaa àdduna tukki dañ fa tabaxal yàlla jàkka léegi-léegi nga gis dëkk boo xam ne am nañu sens ay doj yu ndaw dal dal nañ fa ndax ay jàkka yu bëree nga fa waaye doj yu mag yu bëri dal na fa muy ay jumaa yu bari ma nga fa loolu mooy cosaanal jumaa yi ci kaw suuf loolu mooy cosaanal jàkka yi moo tax fépp fu doj wu mag daloon dëkk ba luñ xat-xat wërsëg lu nasax nasax lu ñu yaafus yaafus balaa adduna bee tukki rek juma dana fa am buñ ko defu yàlla dana santaani ku ko def naka noonu fépp foo xam ne daj wu ndaw daloon na fa waa dëkk ba lu ñu nasax nasax lu ñu yaafus yaafus lu seen diine taq taq suuf faaw balaa adduna bee tukki rek dañ fa tabaxal yàlla jàkka cosaan googu nag jàkka yeeg jumaa yi cosaanoo ca Kaaba ga ngir xeer yooya looloo waral yonent bi santaane ci ndigalal suñu borom nañuy jubale jàkka yi ca xiblaay Kaaba ga moo tax àdduna bi yëpp foo ca dem ñu ngay jël seen seen seen seen jàkka ya ak jumaa ya di ko jubale ak kaabatal musarrafa ndax foofu ma doon soqeeku ba moo tax tamit bu ñuy julli foofu la ñuy dàkk foofa fekk dàkkuloo ko ba man koo dàkk rek ci yow muy julli yow kenn wala nga julli ci jàkka amaguloo réseau foofa mooy joxe réseau yi fa la réseau bi fa la réseau bi commencé ab mbooleem réseau jàkka yi ak jumaa yi foofa lañ foofa mooy secteur bu mag ba foofu la ñu abonné moo tax bu ñuy julli tabaarakallaahu ñuy dàkk ñuy dàkkalee mihrab yi ca kaabatal musarafa googa nga xam ne mooy soqeeku waayu jàkka yëpp di soqeeku waayu jumaa yëpp li ko yàlla di tuddee sax ci alquran boo xamee cosaanal baat ba moo lay daane moo lay daane yàlla baytu la ko tuddee waasin fi naasi bil xajji yaatuuka rijaalan wa ala kulli daamirin yaatina min kulli fajjin amiq am na ay yoo xam dafa ne walillaahi ala naasi xajjul bayti am ñu jàng xijjul bayti kon bayti la ko tuddee baytu nag boo ko jëlee istiqaax bi mu ngi mi ngi mi ngi xaree ci mabit mooy palaasu fanaanuwaay xam nga fanaanuwaay nag guddi rek lañ koy def lañ koy lañ koy def al mabit laa yakunu illa fi leyli lu waral loolu guddi mooy wàccee waayu feeñal ak yàlla yi ci ak jaamu ci jaamam yi di di di waxtu wàccu yërmande gi ji yàlla di jagleel jaamam yi mooy feeñu waayu li fàddu ñeel jaam yi noonu la ko ruuxul bayaan tuddee moo tax maanaam ñu tuddee ko loola nga xam ne kon xaruwaayu baat bi rek lim lay jox lu màgg màgg la su ko defee nag moo tax kon wàccuwaay yëpp ci yërmande ci xéewal ci leer ca kaaba ga lay wàcc door a tasaaroo ci mbooleem néeg yi nga xam ne dañoo abonné wu ca Kaaba ga jubloog moom ci ay jàkka ak i juma loola mooy mooy maanaam mooy mooy mooy mooy mooy mooy cosaan la moo taxoon benn xale papaam da ko mos tàggu ne ko dama jëm Makka looy wuti mu ne dama yaaji te néeba xale bi nag mu ëpp bàyyi dégg ndax Euh, xale bi moom bi ko bàyyi ji waxee loolu rek dafa jàpp ne ku siyaara jib déeg war nga faa fekk borom néeg ba mu ne ko papa doomam fi bàyyi papa gi ne ko xale nga mat ak waa ji mu jooy mu ne ko doomam bàyyi damay dem mu gàddu ko yóbbu xale bi daal ba bëtam ba ñu demee ba ca ah, ah, war a xarmal ci miiqaat yi ñu xarmal mu xarmalal ko ñu continuer seen la bay kaw gaa ba demee ba jàkkaarloo kaaba gi rek xale bi bëtam ya tege ca kaaba ga rek mu daanu xëm jaaree fa dee bàyyi jëy yuuxu sama doom ji di daggitu sama res di daggitu sama xol yaakaaroon ne li ma sémbu lépp su ma demee ba tëlee moo koy mottali moom tey sama boroom jël na ba kanam commencé di joy ci la dégg haatif muy looy dégg kàddu ga te gisoo jëmm ja mu ne ko yaa bi bokku leen jubluwaay yow bi ngay ñëw néebee la taxoon a jub fekk nga fi néebi moom ba muy ñëw borom néebee ko taxoon a jub daje nag moom moo tax foofa rek ruuxul bayaan ay wax fa nuudiya min zaawiyatil bayti anta talabtal bayta fa wajadtahu wa huwa talaba rabbal bayti fa wajada rabbal bayti mu commencé nag bu ko jéem a sangaka xut koy sàngak pour denc dañ koy denc mu ne ko a ah, xam lu ko yuuxuwaat ne ko déedéet fa hata fa hatifun innahu laysa fi lqabri wala fi l ardi wala fi ljannati bal huwa fi maqaadi sidqin inda muqtadir mu ne ah, kii doxul kuy dëkk ci biir bàmmeel de doxul kuy dëkk ci suuf de doxul koy dëkk aljaana de kii ma ca suñ borom kon kii noonu la déggee woon kaaba gi baay ja doom ji moo ko ëpp maqaama déggee ko nile ba ñu demee ñoom ñaar aji kenn ku ci nekk li nekkoon sa càkkutéef am nga ko ci sa aj ji kon kaaba gaa ngóog mooy cosaanal mbooleem jàkka yi kaaba gaa ngóog mooy cosaanal mbooleem jumaa yi mooy nii bi njëkk samp ci kaw suuf di ko jaamoo yàlla moom nag moom ak kaabay malaaka yi muy baytul maamuur ñoo tolloon net malaaka yi bu ñuy wër seen kaaba ga ca kaw ñu ngay gi ci suuf ñun tamit bu ñuy wër kaaba gi ci suuf ñu ngay wëraale kaaba googa ca kaw yàlla bindal ñu ñaari yool yi kon inna awwala bayti wudi'a linnaas laladi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin néeg nag néeg bu tedd la tabaarakallaahu néeg bu sell la néeg bu foora foora foor la suñu maam Ibrahima moo yëkkati at fondation ya gannaaw bi nga xamee ne nii tuufaan muy mbëndam yonentu yàlla noox moomu mu ñaanoon ñëwoon na ba daane tabaxu kaaba gi moo taxoon benn sahabiyu dafa laajoon yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko jàkka yeeg jumaa yi nekk ci kaw suuf ana ban lañ ci njëkk a tabax mu nekk ci kaw suuf yonantu bi ne ko masjidul haram muy kaaba ga mu ne su ko gannaaw si gi mu ne ko mooy baytul muqaddas bu la nee nga ne baytul maqdis boo ne al baytu maarifal ko al muqaddas ah boo ne nag baytul maqdis ngay wax su ko defee nag euh, mu ne ko gannaaw si gi mu ne ko baytul maqdis moo ci tegu mu ne ko lum ko luñ magantee ñoom ñaar yonent bi ne ko ñu ngi magantee ñeen fukki xat ci seen diggante Abu Zarinil Gafaari yi moo ko laajoon yonent bi sallallahu alayhi wa kon noonu mooy seen différence bi fekk li mu koy laaj tamit fekk yonent bi jàngale woon na ko moo tax kon Kaaba ga Ibrahima ko yëkkati fondation ba alquran wax na ko baytul maqdis nag sëtëm ba Yaquba mooy ki ko tabaxaat ñenn ñi ne da ko beesal rek waaye fekkoon na fa tabax ba su ko defee nag mbooleem jàkka yi nekk ci kaw suuf masjidul haram moom mi nekk di cosaan la moo tax moo ci hëpp yool su foofa jullee benn rakkaa ci masjidul haram dafay remplacer téeméeri junney rakkaa ci yeneen jàkka ju moom yonentu bee ko wax masjidu rasul moom junney rakkaa lay remplacer boo jëlee masjidul aqsa juróomi téeméeri rakkaa lay remplacer yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mën a njàngaleem mu leer moomu ak njàngaleem mu foor mu tedd moomu moo ko wax ci hadis boobu jaabir moo ko génnee yonent bi ne salaatun fil masjidil xaraami bi miyaati alfi salaatin wa salaatun fi masjidi alfu salaatin wa fi baytil maqdisi xamsu miyaati salaat nii la ko yonent bi jàngalee ci hadis bopp Buxaari yu andi na ko muslim hadis bopp Jaabir ibnu Abdallah Jaabir ibnu Abdallah moo ko génnee ci yonantu ba sallallahu alayhi wa sallam téere hadis yi andi hadis boobu mu siiw lool kon moom la jàkka yi demante gannaaw ñeenti jàkka yi nag bu ci gën ñu ne gannaaw ñeenti jàkka yi gannaaw ñetti jàkka yi bu ci gën ñu ne mooy masjidu Quba muy jàkka joo xam ne yonent bi dox na dem di fa julli yonent bi tamit war na dafa julli diiram lim nekk madinatul munawara alxames ak altine dafa daan ñëwal jàkka jooja di fa julli ah boo jëlee nag bi nga xam ibnu omar ko génnee moom dafa ne bisab samedi dafa daan yonent bi daan ñëw dafa fa jullee yaati masjida quba kulla sabtin maashiyan wa raakiban fa yusalli fiihi rakaatayni ibnu omar boo génnee hadis bi imaam ahmad solo na ko buxaari yu muslim ñoom ñett ñëpp indi nañ ko ci seen téere yi gannaaw ñeenti jàkka yi nag muy masjidul haram masjidul rasul masjidul aqsa ñoo masjidul quba gannaaw ñeent yi ban moo ci gën mu ne mooy jàkka ju la mag rek moo la gën ndax ju la ca mag lu tax mu gën moo gën a bëri luñ fay jaamu yàlla moo tax jàkka yi saxaaba yi rëdd ca Égypte yi ñu rëdd ko ca Dimishqa yi ñu rëdd ko ci yeneen réew yi yiñ hubbi ñoo gën a foor jàkka yi ñu hubbi seeni gannaaw ndax yooya moo moo moo hëpp luñ fay jaamu yàlla gannaaw jàkka yu magante yooya nag jàkka ji gën ci yow lii lay jàkk gën te fekk gënu ci yow bi gën ci yow jullit bi may déglu ñaari wax ñii dañoo wax ne mooy jàkk gi la gën a jege rek jàkk ji la gën a jege daal nga dem dafa jullee ji moo gën ci yow bu yee gënee tamit gënatul ci yow ndax mënutoo faa joti ñenn ñeneen déedéet nag jàkk ja gën a sori rek ndax comme que gën a sori bala nga faa dem danga nga jéegoowu jéego yu bari te maanaam booy jéego di dem ah, tànk dem yaag dikk yëpp suppeeku bakkaar yéeguwaayu maqaama yëkkatikuwaayu daraja kon nag jëgën a sori su fekkee yaa ngi fay dem waaye par parloo taxut yàllaa tax ñu ne ko gën ci yow su fekkee da nga fay bàyyi bi gën a jege dem ci gën a sori ngir par parloo mais ah, jàkk jële ah, famille bi ma bokk muy raasoo bi ñoo ko fa tabax te ci foofa laa bokk wala nga ne sama sëriñ bi ko fa tabax ci tariqaam bi kon ku man ca tariqa booba laa bokk wala te jàkk jële sama sëriñ ñu koy jiite kon man foofa laa bokk bu loola taxee nag duutoo ci xamati yàlla kon fa nga bokk sax bokkoo fa kon nag diina du diine ci wàllu waasoo dugul diine parparloo ci wàllu pas-pas dugul diine parparloo ci wàllu kuréel dugul diine parparloo ci wàllu meen wala ci wàllu gaño wala ci wàllu couleur diine ji yëpp génn kilifa lañ xam guñ ñu royloo muy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam benn téere ci ne bu ñu jàppaloo muy alquran benn jubluwaaye fii ne bu ñu jubluloo muy kaabatal musharrafa waaye nag su fekkee ne jàkka jee moo gën a sori nga ne naa fa dem julli ji rek par parloo taxut ngir ma mën a def jéego yu bëri ñu ne kon nga waa gën ñetteelu yoo ya dellul ci fiqhul waadih ñu ne jàkka yi daal gannaaw ñeent yee ba ca gën mooy ba ca gën ilimaan rek ilimaan yoo xam ne ju jub ju ragal yàlla ju yiw ju sell ju maandu ju am xam-xam te di ko jëfee jàkka ja muy jiite mënta xem ak jàkka ji nga xam ne ka fay jiitee xamul jubut wala bu xamee tamit maanduwut jubut ragalul yàlla kon daal gannaaw ñeenti jàkka yii ma tuddal la nga jël juróomeel ba muy fi saxaaba yi rëbb ñi mag ci jàkka yi gannaaw yooya jàkk ju la gën ilimaan rek moo la gën kon nag dëgg-dëgg njiit am na solo euh, gën ak ilimaan dana waral gën ak jàkka xées ak ilimaan dana waral xées ak jàkka waaye ilimaan boo xam ne jubut ragalul yàlla maanduwut fu mu bon luxur gu nekk ma ngi cay dugg nekk li jàmbur yi tappale bu jàngee alquran nga daanu waaye bu jëfee rek nga bëgg koo reen di ngir ak mbonam waaye jooja jàkka nag wax dëgg yàlla jullee ji feneen ko melut ko gën téeméeri junne yoon ndax yoonu dafa daan wax ne aimatukum sufahaaukum seen ilimaan yi ñooñu leen ràmmu ëllëg xam na jikko yoo xam ne nag ku ko xam mënoo ràmmu kenn yow day aajowoo sax ñu war laa ràmm kon nag jàkka yaa ngoog nii la ñu gënante lii la ñu gënoon téye ñii dañoo gëm ne wa baxda hadihi l masajid l arbaa yakunu l fadl lil aqdam kama taqaddama li kasrati ma waqaa fihi min alsalati wa zikri wa qiila al afdalu baxda hadihi l masajid l arbaa al masjid l qarib min addaar wa qiil bal al afdal al baid li kasrati al xusaa ilayhi wa qiila al afdal huwa alladi yadumu adadan kabiran min almusallina wa imaamuhu rajulun saalihun wa qiila hiya mutasaawiyatun fi lfadli wallahu aalamu kon loolu ma wax la ci arabiya loolu la ko borom xam-xam yi gisante ca gënante ga kon nag jàkkaangoog ak cosaanam yi noonu ma waxee la ko ci jàkka yi eh, jàkka nag gannaaw bi ma la waxee fi mu soqee ko kasaan yaa li ci aju wax la tamit nañu gënantee ci ngëneel yu mag yu foor ya wax la soqee ko waayu jàkka yëpp fu ñu soqee ko ci masjidul haram kaabatal musharrafa foofa la jàkka yëpp jëlee seen réseau yi fa nañu abonné foofa la jàkka yëpp di connecté ku jublu rek xam nga connexion bu ma sëkk ku ko dëddu amuloo connexion kon nag jàkka yi foor nañ seen soqeekuwaay bi foor na moo tax tamit benn jàkka bu la xamee rek jàkka yëpp xam nañ la jàkka ji la jege ci sa koñ boobu daal boo fexee bam xam la xam na la ci sa poos xam na la ci sa kartan sa doole xam na la ci sa jëmm nga fay jooxe ay jaamu yàlla jàkka yëpp lay xam yi ci kaw suuf yëpp ndax ñoo bokk réseau moo tax fu ca waay dee jàkka dañ lay jullee rek dafa mel ni jàkka yëpp ubbeeku nañ ci sa kanam ñi la ci cay jullee waaye nag jàkka ji nga dëkk bu la xamut benn jàkka ci kaw suuf xamu la xamatul benn jàkka bu lay mën a xamati ak boo mën a askanee ci sa bopp loolu mi ngi mel rek compte banque yi ndax kenn ku ci nekk ba nga demee ubbi compte banque bi nga ubbi foo mën a dem ci àdduna bi boo wanee carte ba rek boo bëggee retiré xaalis mën ngaa retiré boo bëggee euh, verser tamit mën ngaa verser moo xam bésis la fu mën a nekk ci àdduna bi rek valable na ci moom fu mën a ne naka noonu CBA yooyu ak yeneen banque yi ci aju yëpp noonu tamit la jàkkaay yàlla yi mel ndax kat misaal ci li nga xam la daan maam Xalifaay wax jàkkaangoog xam naa boo ma toppee suba ci waxtu bii danaa la wax nag ku tabax jàkka ni mu amee doole ci yool yëkkati sa alal def ko ca soo amul alal nga yëkkati sa ñaq def ko ca waaye tamit soo amul alal mënoo joxe sa ñaq ngir ak néew doole kartan dem di ko duddali julli ya ngay bàggante di fa jullee di dundal jàkka ci sa jëmm ni mu amee doole soo boolee ñett yi nag mu gën a ama doole ti dundal nga ko ci sa alal dundal nga ko ci sa kartan dundal nga ko timit tabaarakallaahu ci sa jëmm soo ma toppee suba ci waxtu wi danaa sof ak yow lii nga xam ne sosoon naa koog yow ci wàllu jàkka yi ndax jamono ji jàkka yi rawat na suñ dëkki teeru yi ndakaaroo dëkk yu ko miru euh, dafa mel ni daal euh, feebar ya nekk ca jàkka ya moo raw feebar ya nekk ca hôpitaux ya ndax ñu ne ca hôpitaux ya ak euh, médecin ya euh, jàngoro yi biti muy ji nekk ci biti rek lañ mën a faj waaye jàngoro yi nekk ci biir lu mel ni rëy bëgg àdduna soxor bëgg daraja bëgg xalal bëgg parparloo bëgg bëgg nangam yooyu nag médecin yi mënuñ ca dara moo tax nag kon jàngoro yi tey nekk ci jàkka yi moo gën a garaaw téeméeri junne yoon jàngoro yi dal malade yi ñu koy fajoo tey ca hôpitaux ya dafa mel ni tamit jàkka yi ñu war a fajoo suñu jàngoro yu bon yu bëri yi fës lool ci kenn ku ne ci ñun dafa mel ni jàkka yooyu ji jamono ña fa ne sax waroon a faje moo gën a feebar bu la yàlla nattoo nag ngay faju ci ku la gën a feebar ah fa feebar dafay gën di dolleeku rek daanaka tey jii jamono ñi hëpp fi nekk ci jàkka yi dañ koo def rek muy centre commercial di ca dund rek ndax seen i ngise rek lu ngeen wax ci ñu liggéey jàkka ji lu ngeen wax ci ñu nekk ci jàkka ji rek ah loolu moo gën a bëri jàkka ju mat mukk heure bu nekk rek ña ngay na fi pexe yoo xam ne muñ cay fexe di ca dundee di ca fuuglu ay sarax di ca fuuglu ay ndimbal ndimbal loo ca yóbbu na dañ bi jàkka yi lu ci ëpp feebar bi tax nañu yóbbu ko ci seen kër yi nee na defee ay commission yu kenn xamut jàkk yoo sa dem ay commission lañ ko far defal defal da jiite commission ya xamuñ dara ci wàllu diine ñii dañoo nekkoo ñu doon liggéey ba retraité rek amatuñ fenn ñu jëm ñu jël seen tànk nga jumale ko sa néegu yàlla ya am na ki ñoo xam ne bañ nañ ko ba am fa seen place bopp ku leen fa jiitu buñ ñëwee ne la jugal xale bu leen njëkk a jiitu nekk ci sàrt yu njëkk ya buñ ñëwee jugloo la ah boole ko tamit def seen i pexe kii président bi kii vice président bi kii trésorier bi nangam ak nangam ak nangam kenn xamut te loola histoire yi gën a bëri ci jàkka yi ci ñoom lay soqee ko fekk lislaam li mu xamoon jàkk moom danaa la ko wax benn kàddu dong mooy am man ja ku ca deful lu dul yoon moo war a fexe nu mu ko dindee ku ca nekk ci lu yoon moo ko war a dëgëral parce que yonent bi nekk jàkka ji benn kàddoo fi ne moom kenn kese dafa taxaw di taxaw naa nit naa fi la waxtu du moom mu wax ak yow ku yalwaan mu wax ak yow ku jéggi digg diggi mbooloo ma mu wax ak yow ku def lu defuwut mu wax ak yow ba mu fi bàyyi ko genn kàddoo fi ne Seydina Aboubacar Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Aliou demeet ba ci suñ mag ñu baax ñii ñëw fi booba jàkkaamutoon benn problème ku feebar dem fa rek danga mën a faj faju ndax booba ñu wér a fa newoon waaye bi jàkka yu commencé am yaay commission yu kenn xamut kenn ku ci nekk même yaa féete woon na le te yow li ngay féete woo xam nga ca dara ci wàllu diine euh, euh, hut hut hut lu liggéey rek lay doon xam na gi ñoo xam ne euh, bu ilimaan ji jotee ñëw ilimaan sañ te dem ca kanam lu dul am na ku ko war a wax bisimilahi am na koo xam ne wala am na ñoo xam ne buñ na ko bisimilahi ñoo sañ a liqaan am na ñoo xam ne ñoo war a noddu kenn mënu ki dara am na ñoo xam ne ñooy laaj sarax ya am na ñoo xam ne ñooy yore bu ñuy takk eh, ñoo ñooy bind kenn mënu ko dara am na ci ñoo xam ne luñ fa dajale ñoo koy ñoo koy ñoo ñoo koy séddoo leen lu nekk eh, nangam ak nangam ñoo cay ne naanaam li ca war a dikk li ci ëpp lépp nag ilimaan di juba di rek ilimaan ji bu fekkee juba di wut war a dem wuti métier mu doyloo ko xam ne lii dafa cee war a jaamu yàlla dugal ci lu koy jëriñ ëllëg ca kontam ba waaye jël léppam bëgg ko wax ci jàkka yi Ah, su boobaa nag bu àndee commission yi yooyu rek ñu fi ñu fi gën a pànk rek bu lii ñëwee lii ci këyit yu mag ya ñu fexe ko jaarale ko ci seen i biir jëli yenn ya présenté ko yooyu yëpp dara ni wucca nag seen i ngise borom xalal yu njàkkaar dem fa ne ko dañoo coupé courant nañ dem woon ko mu fay ndox mi nangam ak nangam ak nangam ñu kenn xamut feebar yooya boo ma toppee dinaa la ci wax lu bëri te nag li ma la ci wax lu ma xam la ndax walaa yu nëbbiwu ko bisu xabiir kon nag boo ma toppee suba ci waxtu yi danaa sof ak yow loolu ma sof ak yow junjël la ko ci wàllu jàkk yi danaa ci yàgg lool nag ndax wax dëgg yàlla feebar yi nekk ci jàkk yi ci ji jamono man yaakaar naa ku koy wax sax léegi tey nga feebar kenn mënu la wax li ci nekk am na ci jàkk yoo xam ne tëb dañ ko am na ci jàkk yoo xam ne ñu ngi xuloo xeex am na ci jàkk yoo xam ne ñi nañ kenn du fi julli kenn du fi def nangam ci yu teguwul fenn yoo xam ne mbiram bakkan rek am na ci yoo xam ne am na kuréel guñ ko guñ ko askane am na ci yoo xam ne am na tariqa wuñ ko askane am na ci yoo xam ne am na famille wuñ ko askane demeet yooyu yëpp boo ma ci toppee suba ci kartanal yàlla ma sof ak yow li ma ci sosoon ak yow in uridu ila al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu lay unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu